jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di duyu bu baax a baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi si bitim réew tey suivre Gaston Production mbokk yi mbégtal nag tey jii ñu war leen a présenté benn combat boo xam ne dina dugal ñaari mbër yëpp face face bu tàng jër ngeen fi nara am tey si diggante ki nga xam ne mooy Thiatou Daouda Fall ak xale bi nga xam mooy Papa Ndoye bu Faas loolu nekk lambi jànq nekk lambi amateur combat yi bu taxawee supporters yi dañuy kontaan combat yi bu taxawee amateurs yi dañuy kontaan parce que bala ñoo dem stade yenn combat bala ñoo dem stade dinañ xam kan mooy daan mais combat yi kumpa la doo xam kuy daan parce que lambi jànq la lambi amateur la tey nag ñu war a def seen jàkkaarloo fii ma toog fi la ñuy def jàkkaarloo bi à travers téléphone yi ak xarale gi moom la tubaab bi def si diggante Thiatou Daouda Fall bu école de lutte Balla Gaye xale bi nga xam ne mooy Papa Ndoye bu écrit Fass Fass nag ak école de lutte Balla Gaye yàgg nañoo bëree ci histoire am na yu ñu fi fekke am na yu ñu fekkewul mais yu mujj yi nag donte nag école de lutte Balla gay xaw naa gagné wala bu fekkee ne mënoo ko tudde gagné sax combat xam moo ëpp importance dañ ko gagné ku ci mel ni Lac Rose ak Sa ku ci mel ni donte Sa boobu mi ngi nekkoon écurie Double Less ku ci mel ni Balla Gaye de 7 août ak Gris Bordeaux donte nag am na combat yoo xam moo gagné bu ci mel ni Lac Rose ak Fils de Balla boobu euh, ndam demul ndam dikkul mbokk yi loolu Fouta production moo ko tëgg Fouta production nag promoteur la boo xamante bi nii comme niñ leen koy waxee depuis mu ñëw ci làmb ba tey macha allah mi ngi avancé làmb ay combat jànq lay tëgg ay combat yu neex a neex lay tëgg balaa ñoo sori dañuy dugal promoteur bi bu ko defee dinañ ñëw nag ci caatu daaw da fi mu jaar euh, xale ba Papa Ndoye bu faas fi ñu jaar ñoom ñëpp dina ñëw ci seen jaar-jaar kenn ku nekk dina caatu daaw da faal 10 combat la am am ci 2 défaites 8 victoires Papa Ndoye bu Faas 11 combats am am ci deux défaites macha allah kon ñaari xale yi kenn ku nekk deux défaites la am ah, kii am 8 victoire kii am 9 victoire Fouta production nag dinañ ko dugal waaye ñaari mbër yi tey dinan tàngal ba mu tàng jër daa mel ni Fouta moom mi ngi woon ci téléphone bi parce que Sénégal moom gars yi téléphone la ñuy utiliser les promoteurs. Fouta maa ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. ah yaa ngi woon ci boolu añ bi yaa ngi en direct Gaston Production. ñoo ngi doole ziar baax a baax. alhamdulilah nga taxawal benn combat amateur boo xamante bi nii combat bi dafa taxaw amateur yëpp validé te loolu yaakaar naa ne ayu bis yi ñu génn wala mois yi ñu génn wala année yi bareetul ci combat yi promoteur yi di taxawal. mu taxaw ñëpp ànd ak yow en cent pour cent ne lii làmb amateur la nan nga def ba décrocher combat Thiatou Daouda Fall ak Papa bu Faas. waaw moo daan tax maa ngi lay siyaar bu baax a baax di kontaan ci dugg bi ma dugg ci émission bi. Mhm. di nuyu ñoo ñuy déglu yëpp. yëkkatee kàddu gi. Uh-huh. waaw di yu ñoo ñuy dëgg yëpp vraiment sama xol sedd na yow sama waay nga sama xarit nga. Uh-huh. moo daan tax man ma doon départ bi rek xëy na ba may ci làmb. Uh-huh. dafa lu ma doon wut muy expérience. yàlla suñu borom mu ngi may suturaal am na lu ma si commencé di xam ndànk-ndànk. Mm-hmm. boo xoolee fi ma jóge ak fi ma yegg chaque jour maa ngi def exploit di yéeg ndànk-ndànk. waaw waaw. damay dem stade damay seetaan amateur laa. Mhm. xam naa tamit lu amateur yi bëgg. Mhm. moo tax saa su ne nit ñi dañ may proposé mais damay dem ba xoolal sa bopp xam ne lii bu ma ko tëggee. Mhm. amateur yëpp dinañ bëgg dinañ kontaan te stade ñëpp dinañ ñëw wuy si ma. macha allah. looloo waraloon ma jël sama temps di xool di segg di xool di segg maa ngi doon préparé sax lu dàq loolu mais xëy na suñu borom ci lii la ma jaarale encore. ma mhm. koy sant yàlla bu ah, baax di yëkkatil kàddu gi ah. di nuyu ñaari ménagère u mbër bu baax a baax a baax waaw ah. di nuyu Ibra Mbaye ak Assise ak Assise di mhm. sama xarit di sama lépp vraiment kontaan naa gis naa seen taxawaay macha allah jafe woon na jafewul mhm. mais yàlla suñu borom dimbali na ma ba mu sottee si samay loxo ndax ñu ko bëggoon bëri na waaw waaw mu jaral ma tamit nag ma génnee xaalis teg ko si taabal bi hmm, dégg naa cachet ya na de non déggoo li ma la dama see def ay millions yu bari laa si def macha allah waaw di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu ci yàlla may ñu yóbbu ñu seeg jàmm ñu fekkee ko te tal am na solo am am na leneen lu ñuy waaj. Hmm. waaw ndax boo si tudd apare rek di nga ne lii ndax grand combat la. waaw waaw. waaw am na leneen lu ñuy waaj a waaj a waaj lu rëy a rëy. Hmm. yow maa yow du ñu nëbboo sama xarit nga sama lépp nga. Hmm, loolu la yàlla def. vraiment na amateur yi préparé xam ne ren dinañu màndi làmb bu soobee yàlla te dinañu seetaan <laughs> lu ñu mus a gis ci biir stade arène nationale. incha allah combat bi ban ban ban moo nga ko bëgg. waaw maa ngi ko mois de juin mbala juillet rek incha allah. allah. waaw maa ngi ci nag bu baax a baax a baax mais am na leneen loo xamante ne ñu ngi koy wàcc. yaa ngi koy togg spécial wala grand combat wala luy présenté wu. xam ne bu ma yéen laay déglu rek après lu ngeen ci wax ma doxalee ko noonu doo comprendre doo xam. macha allah. waaw bu soobee yàlla daal bu gaa yi ñëwee ci biir stade bi bu soobee yàlla bala dégg affiche yu taxaw dinañ xam ne lii. Hmm. moo dàq làmb joo xamante ne nit def na ci ay centaine de millions. waaw waaw moo daan tax. macha allah kontaan naa si yow. jërëjëf moo daan kontaan naa di nuyu sa auditeurs yi fa toog yëpp. jërëjëf ak sa invité yëpp. jërëjëf. jërëjëf kooku mooy Fouta production dégg ngeen kàddu yi nga xamante bi nii yëkkati na ko muy promoteur bi nga xamante bi nii depuis mu ñëw 16 juillet 2021 wala 2022. ah tëgg grand combat Pokola ak xale bi nga xam mooy daam Suguer ba fa jógee gis ngeen ko tamit mu tëgg Pokola ak ki nga xamante bi nii mooy euh, xale ba euh, serpent ba mu fa jógee tëgg Pokola ak bul laal trois grands combats yooyu la Fouta production tegle tëgg ko muy nekk événement tey bu ñëwaatee andil ñu caatu Daouda Fall ak Pape Ndoye nekk combat bu neex a neex neex dégg ngeen ko loolu moo wax nee am na lu mu bëgg ci les suur si waaye mbokk yi bala ñoo dugal ñaari mbëri di caatu Daouda Fall ak Coly Faye numéro 2 ah, mën naa lay Coly Faye caatu Daouda Fall ak Pape bu Faas dañuy ñëw ci xale bi nga xam ne mooy caatu Daouda Fall mbokk yi xale bi def na 10 combats am 8 victoire am 2 défaites premier combat dafa ñëw. bëre ak booy Balla bu Pape Diop Boston Boy Balla daan ko ah mu metti lool nag doomu mbër rakku mbër nekk champion sa première sortie nga ñàkk ko comme Diène Kaïré ni mu ko ñàkkee ah Boy Balla daan ko mu dem ñibbi waaye deuxième sortie dafa ñëw nag motivé wu yaakaar naa ne motivation baax na ci mbër mu ñëw ñu jox ko doomu yoof bu ikiri yoof mu daan doomu yoof avec la manière waaye ba mu jógee foofu noonu troisième combat ñu jox ko xale bi nga xam mooy mbeng mbooro mu daan Mbengue Mboro quatrième combat am ñu jox ko xale bi nga xamante bi ni a ah, mooy Socé Mané bu rëbës mu daan Socé Mané bu rëbës cinquième combat am ñu jox ko xale bi nga xam mooy Yankaw Junior ci kalaafu yi daal ñi nga mu daan Yankaw sixième combat am ñu jox ko Albarka Kayre mu daan Albarka Kayre waaye mbokk yi septième combat am la finalu kalaaf bi Jax production moo ko dëggan digganteem ak xale bi nga xamante bi ni mooy Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin daan ko premier grand combat Ibamar Diop Momo production moo ko tëggoon Modou Baye Fall moom ak Youssou Ndour bu lebu gi mu daan Youssou Ndour bu lebu gi mbokk yi neuvième combat ñu jox ko xale bi mooy gin bu yoof lool prince production moo ko tëggoon Thiat Daouda Fall woneeti boppam daan gin bu yoof waaye mbokk yi dixième combat Baye Ndiaye njiital Alburax Events moo ko tëggoon digganteem ak Colifay numéro 2 mu daan ko lii mooy palmarès su xale bi 10 combats 8 victoire deux défaites muy champion bu jógee nag macha allah fa mu dëkk dañ koy topp parce que gëm nañ ko xam nañ ne mbër la bu daanoo sax duñ ko gëm parce que dañ koy seetaan contact ba buñ demee arène duñ gëm ne kii mbër war na ko mën a féete kaw mais nag ndam ak victoire ak défaite suñu borom moo ko yor loolu moo tax saa bu jaaxlee koñam ak secteuram waaw bu daanoo dañuy jaaxle lool saa bu daanoo mais nag làmb noonu la muy mbër moo xam ne day xeex di bëre di bëre di xeex di mbër moo bu jekkee day bëre bu jekkadee di day bëre di mbër moo xamante bi nii nag ñi mën a risque ñi mën a risque mooy bu jàppee mbër du sooraale du ragal day def action day def kele moo tax booy yi dañ koo gëm parce que nag booy dañuy faral di topp ndaanaan yoo xamante bi nii saabu seen loxo duggee ci biir ngemb rek booy yi dañuy jóg na jeex na parce que xam nañ ko di nekk ak moom contact di nekk ak moom ikiri muy jàpp loxo ci ngemb ñu ne jeex na kon kooku mooy caatu daaw Fall waaye mbokk buñ jógee ci caatu Daouda Fall dañuy indi beneen xale bi nga mooy Papa doomu Fass la doomu NCB Grand Dakar Biscuiterie asalem benn tali ñaari tali waagu ñaay xale bi dafa teel a ës bi rakk ji bi mag ji di bëree di Lac boobu lu tuuti la daan fooye mbapat mbapat nag du nangu ku ko daan bakkan bi la ci daa teg dafa yàgg ës yàgg a kiis kooku mooy Papa Ndoye moo bëri 11 am ci 2 défaites Papa Ndoye bu leen fàtte mbokk yi moo bëri ak ndaraan daan ko Papa Ndoye bu leen fàtte moo bëre ak serpent daan ko Papa Ndoye moo bëre ak oninga daan ko Papa Ndoye moo bëre pakala junior bu kër Mbay Fall daan ko Papa moo bëre premier grand combat moo bébé bis muy cinquième combat mu daan ko waaye bu leen fàtte ne gàmmu gay numéro 2 daf ko daan kon six combat ngi noonu bu leen fàtte dem na ba Thiès daan ki nga xam mooy laay goote muy sept combat bu leen fàtte Papa Ndoye aussi tamit moo daan xale bi nga xamante bi nii mooy Taxe Seras muy huit combats moo daan euh, xale ba Abu Ñaase muy neuf combats moo daan xale bi nga xamante bi ni mooy kii Kolifay numéro deux ah muy dix combats des na benn combat de waaw des na benn combat Papa Ndoye yaakaar naa ne desal na beneen combat boo xamante bi ni bëri na ko affaire yi nag des fois maanaam euh, euh, da ngay plané parce que yenn combat yëpp doo ko jàpp waaye Papa Ndoye mi ngi noonu onze combats. am na ko am ci li nga xamante bi ni mooy euh, euh, huit victoire am ci deux défaites kooku mooy Pape Ndoye numéro deux bu Fass bu ma demee ba ci kanam bu combat bi dellu si waatee rek dinaa ko wax léegi nag ah combat ba taxaw na kan moo ko taxawal Fouta production léegi damay jéem a dugal ñaari mbëri ma xool ba xam tey jii dina tàng caat Daouda Fall gis naa ko ci stade bi léegi mu ne Pape Ndoye foo nekk kan daje géej bëre ma ne ko ah loolu moom mënta ne loolu moom Fouta da koo tëgg def ci ay millions duñ ko maye dañ koy jaay Balla Gaye le nouveau Balla Gaye numéro 2 kooku mooy caatu Daouda Fall oh benn champion ngi ak a teel bu Fass. waaw loolu euh, maa ngi lay siyaar. mu leer yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax alhamdulilah. nan nga gisee sa palmarès bi ma wax léegi onze combats huit victoire deux défaites nga xam ne champion macha allah sa morom yi nekk ci làmb ji ñi am nañ quatre ñi am nañ trois défaites nga am deux défaites te say défaites day soree. waaw noo gisee palmarès bi. waaw palmarès man kay maa ngi ci ma xool ma ko calculé waat de maa ngi ci treize combats. treize. waaw. ok. Euh, euh, dix victoires deux défaites onze ok ok kon après nga farli ma ñeneen ñi parce que man onze laa gis. waaw. waaw après après da nga may farli ñeneen ñi rek def ma ko ci whatsapp bi rek bu ko defee dinaa xam xaw man moom li ma jàpp rek laay wax. mais yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm kay maa ngi sant bu baax de. alhamdulilah may ma may ma tuuti ma dugal sa adversaire xam naa tey jii parce que sa adversaire dama ko gis léegi mu estati xam nga lan la wax. waaw Papa foo nekk fekk ma géej ñu bëre. <laughs> ok bul coupé bul coupé c'est dégg nga Pam Ndoye nee na moo ngi ci onze victoire victoire défaite bi ma fàtte woon mooy Jackson Jackson ko daan onze combats yi moom leer na Modou Anta naa bu ma ko fatleet ah laay mbëri tey dañoo teel a kii Thia Daouda Fall Thia Daouda Fall maa delloo ziar bu yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. fi nga nekk nag daa xaw a bari bruit da ngay déplacé wu tuuti rek. Ah, ah, ok te yokk kàddu gi yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant yàlla. alhamdulilah résumé naa léegi sa palmarès muy dix combats huit victoire de defet nga xam ne moom tamit da ngaa gën néewi défaite macha allah sa morom yi ñii am nan quatre ñii am nan trois.

Mm-hmm. mais képp kuy mbokk nga yëkka kàddu gi bu baax Pape Ndoye. waaw. nuyul Thiat Daouda Fall mi lay dégg de comme yaay magam. Samb maa laa ilaha illallah. amiin caat caat réalisateur bi nee na nga yëkkati sa kàddu bu baax comme Pam Ndoye. ay caat yëkkal volume bi. bon appétit. mais mais yéen maa ma paree ko jàpp ko ci ah. ci ruq. non dama koy pile moom moo ci dara parce que caat moom xam nga déggoo tur bi xanaa caat. lee waa caat de dañ ko daa nax. waaw gis nga suñu caatu kër gi damay ñëw ma ne ko eh, bul génn kër gi toogal fee moom mii na jàpp ne loolu mooy ñëw de. incha allah mais mi daa yeewu te bari pexe de. bon bii nag bii nag bii yokkal kàddu gi. man caat fu ko fekk teg ko baax na ba booba incha allah. <laughs> doo mag de. ah da nga koy baax na. mais mais ok ku ne ma posé la benn question rek bu ko defee ngeen yëkkati kàddu gi bu ko defee seen supporters yi man leen a dégg bu baax baax caatu Daouda Fall. waaw que ñi nga doon bëreel ak Pape Ndoye benn lañ. yokkal volume téléphone bi.

waaw gis nga yow euh, Mor Anta kii Mor Anta xale amatul ci làmb ji. Mhm. làmb ji léegi ñëpp ay champion la am doole mbër boo bëreel mbër la. mbër mhm. boo ngem bu taxaw ci digg géew gi di bëri rek champion la la. Mhm. waaw moo tax mbër booy bëre rek jox ko cër bi nga ko war a jox jox a jox man mooy li may wax chaque li ma weesu weesu naa ko adversaire bi taxaw sama kanam rek man moom laa visé moom laay jëflanteel comme moom moomu. waaw waaw def moom champion la quoi. champion lan daanaan la wax dëgg yàlla mais maa ngi ñaan yàlla may ma ndam ci kawam incha allahu rabbi. ok am na solo yéen ñaar seen seen seen combat dafa taxaw amateur yëpp d'accord validé ne lii mooy combat combat yooyu dafa gëj dafa gëj am ci làmb est-ce que mën ngeen a confirmer amateur yi ni ñu leen nangulee ne leen lii mooy làmb le jours yi. waaw dañ koy confirmer incha allah dinañ gis lépp bu soobee yàlla dinañ gis xeex dinañ gis bëre dinañ gis lépp daal waaw. ca caat. incha allah waaw comme ni mu wax ok euh, Coly Faye numéro dama vi estati caatu Daouda Fall mu ne mu ne déggal ma naan Coly Faye dama vi estati caatu Daouda Fall mu ne Papa foo nekk ñëwal ñu bëree ñëwal ñu daje géej bëree. waaw. <laughs> daa mel ne xiif na la de. moom moom bu ko neexee mën nañoo ànd di entraîné sax di contact géej di def lépp te bu jour ba bu ah, loolu mënul ne non non non loolu mënul ne. waa waa Thiat. ah waaw daa mel ni mi ngi ginaar de. la ñuy ah. ginaar daa doon lekk de wax dëgg yàlla mais li may wax. incha allah. ginaar caat <laughs> yëkkatil kàddu gi. ok. <laughs> waaw loolu kay mm. mais mais maa ngi koy wax léegi sama biiri kàddu ma ne Fass ak école de lutte Balla Gaye yàgg nañoo daje bu ci mujj bi dañoo match niin mais yéen waa Fass daaw leen neex la ci école de lutte Balla Gaye de ci combat yu mag yi Pape ndooy loolu danga koy dindi wala. waaw ay ay ay champion lañ ñaari écurie ndaanaan ñooy daje. waaw écurie Balla Gaye ak écurie champion lañ xam nga écurie bu Balla Gaye doon nekk rek. Mhm. loolu jaratul sax lim xamal ni foofu moom ay ndaanaan rek ñoo fa nekk. Mhm. écurie Fass rek ku Gris Bordeaux di ngemboo di génn tamit foofu foofu lim rek xamal ni champion la. Mhm. waaw mais lamb yooyu ak lamb bi du benn. ah luy différence bi. ok Thiat Daouda Fall fi Sa Thiès jaar ak ak Lac Rose Balla jaar fa ak Gris ndax.

ok am na solo Papa Ndoye euh, ma bàyyi nga tàggoo ak sa supporters yi lay seetaan ak amateurs yi. waa li may tàggoo maa ngi nuyu seetaan euh, émission bi ñëpp di nuyu àdduna yëpp di ñaan yàlla si dëkk bi jàmm. amiin amiin di sant yëpp sama yaay sama papa bu baax a baax a baax a di ñaanal sama adversaire jàmm. di ñaan yàlla yàlla na làmb ji date bi doon lu gaaw nag incha allah. promoteur bi dugg na léegi nee na mois de juin wala juillet. waaw lu mu gën a gaaw rek dina gën a neex waan incha <laughs> waaw ah, ndax saison bi bëgg nañ ci ñaar ba ñetti combat. ok. te bu bu dal yi gaawee rek ci la ñuy mën a am loolu incha allah ñu ngi koy ñaan loolu lu mu gën a jege rek mu gën ñoo arrangé di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal promoteur bi Fouta production di ko ñaanal journée bi lim ci gis ba dugal ci xaalisam yàlla na gis lu kawe njortam. loolu amin di ñaanal ñëpp jàmm di la sant yooyu Modou Anta bu baax a baax a baax a baax di nuyu adduna yëpp waaw. jërëjëf nuyul ma Lac Rose kilifa gi euh, euh, Thiat Daouda Fall ma bàyyi la nga tàggoo ak looy wax Fouta. waaw nuyul ma ko nuyul ma kilifa gi bu baax. waaw dina ko dégg ak ñoom Papa la sama noonu yeeg Papa Ndiaye amul jiw xam nga maa ngi leen di sant daal di leen gërëm xam nga man sama kër dafa fi am ay noonu. sama eh. benn fay Thiat Daouda Fall lay supporté. Eh, <laughs> problème yaa ngi démarré. ayca Thiat looy wax promoteur bi ak lan ngay tàggoo. waaw di sant Fouta bu baax a baax di jéeg bu décroché parce que xamaa ñi ko bëggoon bëri na mais ci loxoom la ko yàlla teg. Mm-hmm, mm-hmm. di ko di ko baax a baax di ko ñaan lépp lu gën si ñun mu gis lu kawe jotoon ci baax Seydina Mohamed muy sama côté man di sama a adversaire. Mm-hmm. waaw di rafet di nangu di sama adversaire tamit ma koy ñaanal di ko wax. Euh, jërëjëf ci li mu accepté pour bu rek man parce que combat bi jafe woon na man tamit sama combat jafe woon. waaw di di jox di di woo képp kuy bëggee Thiatou Daouda Fall di la wax Thiatou am na combat ak Pape Ndoye di la wax nga ñaaral ma yàlla bu sama jot Lamine nga ñaaral ma yàlla may ma dem ci kawam di nuyuwaale ma nga bopp di la doon waa famille bi yëpp maa leen di bëgg bu baax a baax a baax. mais dégg bëgg bu baax. di kontaan ñëpp di bëggewaat ñëpp waaw ah, di ñaan yàlla may ma dem ci kawam ci barke na moom. mais dégg naa Balla Gaye moo décanté situation bi de parce que combat bi narutoon a am de da ngeen koy confirmer wala. waaw. waaw waaw waaw sama côté moom hmm. ah, macha allah kontaan naa si yéen. jërëjëf jërëjëf mi ngi noonu dégg ngeen caatu Daouda Fall dégg ngeen Pape Ndoye ñuy ay ñaari mbër yu yaru nag ñaari mbër yu joxe cër ñaari mbër yoo xamante bi nii. dañu rek dañu respecté presse di ñaari mbër yoo xamante ne nii dañu respecté seen ay entraîneur di ñaari mbër yoo xamante ne nii dañu respecté seen ay dëkkandoo parce que lii bu leen neexan mën nañ ko bañ mais nag ñun ak ñoom ñoo bokk terrain bi di leen jaajëfal bu baax a baax comme ñëw naa ci palmarès su Thiat Daouda Fall pare ñëw naa ci palmarès su Papa Ndoye comme ni ma leen di wax palmarès su Papa Ndoye mbër la boo xamante bi nii carrière bu méttee méttee métti la bëri Papa Ndoye Ndrame Papa Ndoye seexu naa bi mu bëree seexu naa serpent Papa Ndoye bu doon ragal day bàyyi seexu naa dóor na ko dóor yu méttee méttee méttee métti te Papa Ndoye taxul mu bàyyi ba ni mu ko daane muy serpent bi mu bëreeg oninga combat bi metti na trop trop trop trop bawut bi mu bëreeg gàmmu gay numéro 2 combat boobu gàmmu gay bëreetu ko combat boobu Papa Ndoye nag yàgg naa bëree combat yu métti mais combat boobu moom la gàmmu gay gëjee bëree ci combat bu métti kon Pape Ndoye daanaan la mi ngi noonu comme ni ma ko waxee 11 combats maa ngi xaar mu jox ma comme nee na 13 combats la mu joxaat ma yeneen ñaari combats yi comme chaque jour niñ koy waxee rek émission la faaw mu leer. di leen jaajëfalaat bu baax a baax mbokk yi di leen wax na leen Momo production nag mi ngi ñëw ci diggante anakonda ak booy Sey numéro 2 am na beneen combat bu muy xaar te diggante Tyson numéro 2 ak Obali foofu nag dama fi taxaw def benn taxaw seetlu supporters yi nañu encouragé seen mbër yi ku ci mel ni Tyson numéro 2 xam nga ne làmb moo waxul dëgg mais heure bi waroon na fekk mu dépassé fii problème nag bu amee situation ci kaw compréhension wala compréhension ci kaw situation mbir mi am na fu muy toll bul xàmmee koo raw ak koo rawut ak koo war a bëreel koo warta bëreel jëlal avance ñu fay la lu ko jar nga dem bëre parce que làmb ji léegi boo bëree boo daanee dem boo daanoo xaar boo bëree ñu fàtte la te Tyson 2 champion yi ngay gis yëpp daan na leen ay colonel Sagna ay ay Mandela bu roog énergie te déggal ma naan Mandela waa ji dama koy fàtte Nelson Mandela hmm? te mu nekkoon ci arena tour bi ah? daan ay champion daan ay eh, xale ba ñum tuddati waaye dama koy fàtte waay euh, oh, xel baaxul daan ay booy ngaay daan ay bo nekkuréel booy ah? nekkuréel daan ki nga xam mooy garga 2 daan ay góor soog daan ay caatu yow xale bi macha allah 19 combats wala 21 combats te defet yi bariwul parce que boo dee xool guy gi moo ko daan ak bu ma juumul assurance bu mbuur ak franc 3 defet lamb pili de 21 combats mais nag muy bëre xale xale boo xamante bi nii lamb du ak maas dabante la di bu njaay bu joof yor nga xam ne ñëpp xam nañ ko mu confirmé ci lit avec frappe confirmé ci lit simple di champion mujjee daan ngeer bu sap moom tamit ñu boole leen loolu moom moo production moo ko taxawal mais xale yi nañuy gën a encouragé yi ñu bëree parce que Tyson 2 problème mu adversaire la am Ibou Ndiaye ñëpp ko xam kenn dootu ko laajte li doon bon combat bi taxaw ñu ne kan lay bëreel xamuñu ko mais bu Ndiaye ñëpp ko xam confirmé na ci làmb représenté na réew mi fu nekk ak ci bitim réew kon nag loolu làmb la nan leen di encouragé di xam ne situation bu amee rek da ngay jël dara teg fi am na ci ñoo xam ne duñ la jox combat te tey boo amoon problème mu dépasse cinquante mille boo leen wooy ne leen cinquante mille laa soxla buñ la ko joxee dootuñu la ko jox fu ñuy weddi yàq sa der doo ko fekke kon nag am na ci loo xamante ni champion da nga koy jël def ko muy secret ci yow nga jël combat nga dem bëre ji boole lu la neex ak lu la naqari des fois di nga jël komba boo xam ne da nga ciy rek régler ay soxla danga ciy faj ay soxla décanté ci benn situation mais dalay leer na lii nekkutoon combat mbër yàgg naa jël combat ngir bañ a ñaan ngir bañ a sàcc ngir bañ a def loo xamante bi ni ku ko ca fekk da koy xeeb mbokk yi lii la woon dañ leen di jaajëfal rek chaque jours di waxtaanaat ak yéen rek dañ koo sekkan ak yéen rek waxtaan ko mu neex comprendre la di nuyu nag waa réew mi yëpp ak waa bitim réew mbooleem ku ñuy seetaan fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew ñaanalal leen ñu suñu papa jooju muy père Gaston yàlla fëgg boppam guddal fanam wéral ay cëram ba mu dellu siwaat ci njaboot gi parce que kooku bibliothèque la kooku dictionnaire la am na lu mu suyee ci carrière yu yenn mbër yi am na lu mu suyee ci làmb am na participation bu rëy bu mu def ci développement wu réew mi ba tey boo tuddee gason Mbengue partout dans le monde ñëpp ne kooku macha allah def na lu nekk si làmb ah di ko ñaanal yeneen promoteurs yi nga xam ñoo fi nekk tey ñu ci mel ne ay ñoom petit production mi ngi jëm dimanche diggante ah Fourrière bu Grand Yoff mbooloo caatu Jolof ah macha allah ñëpp di xaar làmb jooju diggante Siteu bu Ngor naaru Soka Sabala 2 ah ak xale ba Babacar Balde ah say jàmbaar ngoma loolu amateurs yi ñoo koy xaar ak petit production waaye Ousseynou laay production moo jiitu suba lay ñëw si diggante ñagas bu bawal mbooloo ak Boy Sadio bu Ikri Lamsar du Fëgala ah bu Lamsar ak Ton Sita bu Géejawaay ah bari na fa ay combat yu neex a neex a neex a neex yu fa am mbokk yi tey coow li bari na torop waaye retour bi mooy dàq mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production xale yi jërëjëf.